état bi il faut mu surtout Maman Mama Yacine Fall euh, ak am Sylvie Diouf ñom ñu ngi dem diaspora bi. Mhm. ok ñom ñu ngi dem enquête mais ñoo ñu amni problème problème bu am moy lan affaire keuyit wala carte d'identité wala passeport mais fi nit ñi ñoy dé manam problème moy fi nit ñi ñoy dé do ay mous ñom ñoy dé mhm. ay nit ñom ñoy là. dañu wante deug lolu baxna c'est joli mais fi moy problème wax ci terrain bi wax ak yi wax lan la ñu ñu problème mais ay séminaire séminaire séminaire ok séminaire comprendre nga mais nañu wàññi séminaire yi wàcc sur le terrain gis nga nit ki soo jënd dara boo bëggee jënd ceeb na ngay def bitig bi ngay dem mu jaay la ceeb moo toog fii naan ceeb laa bëgg mu fekk la fi mënul nekk c'est impossible. tout à fait ah waaw ñëw si terrain bi wax acteur wax ñu ko maîtriser waaye yéen tamit est-ce que tamit bu ñuy wax ak yéen tamit di ngeen dégg aussi parce que benn instant dañ naan est-ce que ñii dinañ ñu ngi déglu daal ñu ngi déglu est-ce que tamit ñu ngi xool <laughs> li nga xamante ne mooy euh, xew fële est-ce que tamit li ñuy dégg loolu la ñu bëgg a dégg wala tamit leneen lañ bëgg a dégg bay balaa may jox waaw daguma la jii famille ñu nekk Mbour amul kenn ku fa ñëw pour jaale si leen kenn ñëw ko pour si leen président ñëw na non dafa ñëw wax dem mais amul kenn ku fa ñëw jaale si. may mën a jëy ñëw na fa may mën a jëy ñëw na fa. ñëw na fi mais mu def mais ñenn na ñu bëri nga xam ne tey jii maanaam les les les les concernant. Mhm. les concernant mhm. ministre bi. mais bu fekkee ñëw nu yónnee ay ndawam ñoo xam ne ñi kat yëg nañu mais comme si que dara xewul. wax nii rek bàyyi mais loolu dafa yomb il faut ñëw si terrain wax ak ñoom masawu ko bo wane leen ñun naqar bi ñu ko bokk euh, yaakaar naa moom bu ñëwee daal dama yaakaar ne ñëwal na Sénégal moom bu ñëwee euh, donte nag ñeneen ñi war nañoo ñëw ñëw mais quand même moom moo ñëwal Sénégal moo jiitu réew mi kenn ku nekk daa am lu mu la mhm. kenn ku nekk am na lu ñu la dénk dañu dëgg ministre de la pêche tey war na ñëw Mbour mool yaa ngi foofu see xam ne lu may wax boo demee golf tefes mool yaa ngi fa mais war na wax ak ñoom lañ leen problème bi lan la ñu wax ko mool yi loolu la ñuy wax à chaque fois mool yaa ngi fa en pagaille mool ñooy tëgg gaal yi mool yooyu noonu ministre de la pêche war na wax ak ñoom affaire ministre ministre affaires bi tam war na wax ak mool yi laaj leen problème bi lan la mais kenn ku ne boo ñëwee am sa garde corps tekk à côté kenn du la jege mais problème bi noo koy xamee. xam naa ñu ngi lay dégg du ñàkk ñu ah, ngi waajal pour dem fa wala sax ñu yónnee pour ah, fa ay ndaw ah, mais li ñu mën a jàpp jàpp état jot na faa dem peut-être banqaas yi eh, ñenn ku ci nekk sa wàll yaa ngay waaja dem foofu wala yaa ngay xool ci yenn anam ngay demee foofu ngir xool problème bi lan la ba ah, mën koo eh, jéem a saafara loolu bu ñu yàkkamti du ñàkk fan yi ñëw dinañ gis loolu ah, mais ki nga xamante ne moo jiite ñëpp bu fa demee demal na ñëpp donte nag ku ci nekk war ngaa demal sa bopp loolu ñu koy di fan yi ñëw